Euh, mu def ci euh, article bu am solo bi xam ne ko war a bàyyi xel. Euh, ma kontaan si trop ba ma liiree article ba mu jeex ma gis mu bind suuf ancien candidat à l' élection présidentielle rek ma ree ne kii li kese la sàkkoon. lii kese moo nekk moo tax mu bëgg nekk candidat. am na ñoo xam ne ñoo bëgg lu ñu signé ancien candidat à l' élection présidentielle. donc je lui dis que dafa yàqamti trop te jaasi kenn ko jiitu ci mbaram. dans les textes du Pastef c' est clair Ousmane Sonko ci moom position la yàgg am. dégg naa sànq sax ne il a démissionné de sa de sa mairie de Ziguinchor. d' accord donc sànq gis naa ko sur l' internet. j' ai pas encore vérifié ndax waxaguma ak moom. Mhm. mais xam naa ne il va ndax euh, loolu la gëm d' ailleurs pour l' mettit mettitlu woon na ko sur le cas Birame Souleye woo na ko intimé ko wax na si ba sonn pour Birame Souleye démissionné ndax dafa yor ñaari post muy député ak maire. Mhm. donc quelqu'un bi nga xam ne mu ngi sonn ci njabootam leen tere ñu cumuler ko gëm naa ne du cumuler. donc euh, charge premier ministre dix de dix bi nga xam ne mu na ko boole ak nekkaale maire localité bi. Hmm. donc Ousmane Sonko va démissionner yemul foofu sax le président Bassirou Diomaye Faye dafa démissionner sax de son poste de secrétaire général du PASTEF. Hmm. Sonko tamit kazaalika. donc ñun équipe bu ñu àndal du ay tappalekat ak gars yi layam layam maam gars yi li ñu gëm la ñuy wax te di wax li ñu gëm. maanaam ñun loolu la ñu woo Sénégalais yi et dans ces prochains jours incha lépp dina leer opposant vingt-cinquième heure dañu garder à dire dans ce pays. nañu nañu xaar ba gouvernement taxaw ba gars yi commencé liggéey man dama gëm ni bu ñu sérieux woon sax actuellement ni l'heure n'est pas à la prise de parole ci jéem a sànni xeer ak jéem a dafa teel maanaam ci gentleman sax dafa teel aujourd'hui nañu dem liggéey yi ndax liggéey est bi politique du liggéey nañ dem liggéey en attendant di xaar li gars yi wax au moins nit ki déroulé benn un mois sax. Mhm. dafa am li nga xam minimum de bon sens sax ak de savoir vivre en réalité. Mhm. man du la tabb nga ne kii opposant la gouvernement sax taxawagul. nga commencé bëgg ne da ngay sànni ay xeer mooy que da nga amul looy wax rek. ndeysaan donc euh, ñoom yàlla leen yàlla jàppale. xam naa ne xamuñu luy opposition. Euh, et c'est de faux opposants ils ont toujours été de faux opposants d'ailleurs c'est des gens yoo xam ne dans les vrais combats de l'opposition mosu see taxaw. dans les combats de la rue de l'opposition mosu see teew kenn mosu leen dóor kenn mosu leen tëj. maam ñii mooy opposant salon yi xam ne mooy tappalekat yi rek man dina yi. d'accord ñun dañoo pare yàgg nañ toog xaar buñ ñu buñ ñu yëngal.

yaa waaw man de. Ah, gaa ya si ñam ñam Macky wala. non non non. <laughs> ah Diomaye waaw Diomaye maa koy dégg. ak président ak euh, le maa ngi koy dégg moom macha allah. donc euh, ñu ngi jokkoo. donc euh, ñoom ñu ngi si liggéey bi. Ah, il est il est au top. le moral actuellement est au vraiment ñu mu ngi mu ngi mu ngi liggéey. Mhm. xam na li koy xaar te mu ngi ci man vraiment j'ai confiance en lui wax dëgg yàlla. et confiance choix yu muy posé en tout cas posé wul choix bu ma bu ma àndul. Euh, ndax yàlla dafa ma dimbali nag ma am sama liberté liberté boobu man négocier wu ma ko euh, du pour bosé wu qui que ce soit sama xalaat sama àqulaay taal dama koy wax euh, chaque fois fu ma ko war a waxee naa ko fa waxee donc man je serai là comme sentinelle ci biir mbir yi. donc euh, du ma setaan mbir yi di yàqu du ma setaan ñi ñuy tappale du ma setaan ñuy wax li def leneen donte nag am na ay tappalekat yu ñoo gane si am na tappalekat yu bëri yoo xam ne dañ ñoo gane si mel ni ñu ànd ak ñun ñun xam nañ leen ñun xam nañ ñëpp liggéey naan di booy naan kii xam na lépp prés prés yi xam na lépp donc yàlla ñu yàlla defal sutura te noonu la demee woon sax jamono yonent bi salaay salaam yonent bi nekk na Médine naafiq yi nekk fa hmm. jullit yi nekk fa kenn ku nekk mu xam kii kii donc yenn mbir yi ñëpp la accepté dàqul kenn toroxalul kenn doyadilul kenn waaye kenn ku nekk xam na fi mu yem ak yow donc man gëm naa ni ji nga prési hmm. prési tekkam googu xam na li xew de xam na lépp hmm. donc euh, yàlla na ko yàlla doole sutura. d'accord euh, surtout defal ko jàmm incha allah te may ko ndam ci li mu dugg. Hmm. Euh, beneen bi ñu bari ñu ngi koy laam-laamee yéex teg génn liste gouvernement bi ñii ne dafa am xëccoo biir Pastef kii naan maa la gën a yay ci nekk ministre ñii ne déedéet Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye dañoo nekk di def enquete de moralité te d'ailleurs le président sax moo ko sàkku ci moom ne ko defal enquête de moralité ci ñi ngay jël pour ñu assainir nouveau gouvernement bi. lan nga jàpp ne mu yéexal génnuk liste boobu. waaw man dama jàppul sax ni dafa yéex. waaw man jàpp man dafa yéex di parce que. Euh, le président a prêté serment le 2. le 2 waaw. démb moo fi dox. Euh, tànn son premier ministre. Mhm. Euh, hier wala avant-hier le premier ministre nekk ci ay liggéeyam ak di peaufiner li nga xam ne yàgg na ci liggéey ndax liggéey bi tàmbaliwul léegi. Mhm. liggéey bi depuis des mois ngi ci liggéey. Mhm. donc mu ngi peaufiner li mu liggéey. nit yaa ko bëgg wax lu heure nit yaa joxe seen ay heure waaye moom waxul heure dafa ne dans quelques heures rek dañu joxe. dans les plus brefs délais quoi dans ñun conseil constitutionnel waxoon na plus bref délai waaw conseil constitutionnel war naa leen plus def délai. Macky toog leem-leem bi. Mhm. te te te kenn. Mhm. <laughs> donc nous nous sommes dans les délais. Mhm. Euh, man gëw ma ni célérité dans la mise en place d'un gouvernement mooy wane sérieux ak rigueur ma dama gëm ni sérieux ak bi mu ngi nekk dans le choix dans le bon choix te ñan nga nar a àndal. te loolu pour man jarul parax paraxee euh, wala dafay wax naan du ma topp diw loolu soo ko déggee fa ngeen jëm soriwul. mbir bi xam ne dañ ko bëgg doxal mu nekk lu lu lu lu sérieux lu war a am ay jeexit ci réew mi. Mm-hmm. man gëw ma ni quelques heures sañ ko war a def. donc euh, deux trois ba quatre jours jàpp ma ni ba tey ñoo génn délai yi en tout cas li leer mooy avant fin week-end bii incha allah Sénégal dina am gouvernement parce que mercredi prochain conseil des ministres dina am ay ministres yu topp incha allah waxtaan Sénégal man loolu laa jàpp. Euh, gouvernement bu élargi euh, bi nag il sera réduit. waaw il sera réduit et gouvernement bi du gouvernement partage de gâteau ce sera un gouvernement de travail un gouvernement de de gens soumis ay nit yi nga xam ne dañoo jébbalu ci Sénégal fas yéene nekk ay baay faalu Sénégal liggéeyal ko. Hmm. il sera pas ce la question de sedd ay nit yi nga xam ne ay alliés du question sédd loolu moom vraiment sur cette question là le président comme le premier ministre ont été très clairs sur cette question là Sénégal du gâteau bu ñuy war a séddale euh, et naa ni y aura beaucoup de gens yi xam ne politique guñ politique aale wuñu waaye ils sont dans le gouvernement. dañ ko doon dégg sax si si ñenn ñi. ñuy di hmm. ah, c'est pas sérieux man dama jàpp ni on a on a on pas des ministres pour ay région ak ay tarixa ak ay hmm. ay ethnie ak ay confession maanaam euh, gouvernement ay objectif la yu leer ak ay compétences qui correspondent ni woo leen ni liggéeyal dëkk bi vraiment foofu la war a nekk ñu ko jël di ko di ko sectariser fii Sénégal dama ne fi sax ba ay jamono naan teel tarixa amul ministre hmm. xalif woo président ne ko man sama waa tarixa amul benn taalibe bi xam ne dañu ko nommé taali diw tarixa diw ak tarixa am nañu ay ministre nga xam ni kon le mal était très profond gars yi di travailler sur cette division là division bu nekk benn clientélisme bu grave bi nga xam ne euh, loolu nag vraiment c'est à corriger man dama hmm. gëm ni euh, ay ministre du question de localité ay question de gox question de xam-xam la mën-mën ak loxo yu set te incha allah loolu gars yi ñu ngi ciy liggéey gëm naa ni nous serons euh, fii léegi suba wala gannaaw suba incha allah dina génn. d'accord. waaw ñu ñu ñu dama koy jox benn sama benn question rek laata may dem ci Khadija quand mu dem ci internet yi euh, sama question foofu dafay nekk question boo xam ne sànq ñu ngi ci woon quand même mais euh, dama ci bëgg a dellusiwaat comme ça buñ ci dellusiwaatee euh, professeur ma laajaat la ko sànq yaa ngi koy wax li ko ni ko Bélial laajee ne. Euh, suñu digganteeg France ndax dañuy dagg li dox suñu digganteek ñoom nga ni dañuy def loo xam ne win-win lay doon dañuy gañe ñoom ñuy gañe sànq ma jot information ñu ne euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar fay fas yéene naa jël dogal ci weer wi ñu nekk ne bépp entreprise français bu basé wu fii ci Sénégal booy fay say impôt dootoo ko fay France mais fii nga koy fayee loolu su fekkee lu am la. Euh, yan conséquence la mën a indi ak ban yan njariñ la mën a apporter euh, Sénégal. mais mais loolu mooy yoon lii yoon mooy quand on est euh, soo amee domicile fiscal domicile fiscal